c'est quand même un peu dramatique pour cette dame qui est un peu enceinte euh, bon xam naa ko yërëm tuuti et puis tout ça c'est c'est un peu triste parce que toutes ces histoires la c'est des histoires yoo xam ne yëfu privé la yu waruloon génn sur la sur la sur la voie publique waruloon demee noonu euh, surtout que nag ñu bugg ko jaxasee ak politique man gëw ma gëw ma loolu li ma gëm daal mooy su ay nit jotee Euh, mun nañu waxtaan ba juboo suñu munul waxtaan ba juboo ñu dem fa nga xam ne doone benn ñu àtte leen mais bokkuma ci set culture de euh, du voyeurisme de xam ne woo ñu uññante sutura bi daal ëpp na ak waxante lu ñaaw li ci ci wàllu politique man gëw ma fol mu engagement boobu te gëw ma yi tamit. même dans donc yéen après li xew ci dossier bi yëpp da ñu bëgg a gëmloo ne voilà yéen da ngeen di jël ay pincettes euh, bëggu leen. politiser dossier bi mais mais Maimouna j'ai l'habitude de euh, le dire mbir mi ñaari diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr la mais c'est toute une machine d'État c'est toute une machine politique. Euh, pendant deux ans on a parlé que de ça nga ñëw toog fi ah, tey parce que le procès dama seet na yéen waa APR da ngeen xaw a maandu ngeen xaw a sedd koo woo mu ne la euh, non procès ba alors que pendant deux ans bu nous avez tenu en haleine. waaw ah, mais Maïmouna un un procès en cours mais loo ciy wax. mais man kii civilisation bi ngeen ci àndal tey dafa ma jaaxal pendant deux ans vous nous avez tenu en haleine pendant deux ans à un moment donné ouais. on a oublié que c'était entre deux citoyens waaw ouais, d'accord mais le procès c'était entre deux blocs politiques nga fàttaliku Quand cette crise est survenue, pendant 15 jours, la majorité a tenu la position de dire que c'est pas notre affaire c'est l'affaire entre deux privés. c'était une stratégie politique loolu saa yoo leen ko defee. léegi saa yoo leen rek stratégie politique léegi pendant cette période les autres ont monté un scénario de complot politique auquel il fallait forcément répondre et nous avons répondu fii tamit. Ah, fii tamit fii tamit li fi xew. loolu la rek may mun a man mun naa wax sax man ci sama turu bopp man rek man ce ce sujet là dans le fond intéressé wu ma mais par contre li wóor mooy ñi mu concerné euh, dañu war a dem seetal seen der en l'occurrence euh, Ousmane Sonko loolu lañ mus di xalaat di ko wax et que la justice fonctionne loolu moo di dëgg mais politique de déballage de waxante lu ñaaw ak yooyu ñun euh, en tout cas man xaw ma ku complot fekkeewu ma fu ñu complot yi xaw ma nu ñuy defee complot xaw ma complot kat donc su ñu waxu complot ak manigance d'état man xaw ma li ngay wax ah. quand même maa kàddu euh, majorité bi coordination communication bi euh, mais man gisuma fu ñuy complot acteurs yi ji du sax te ñu nekk euh, dans le cadre de l'état pour certains man mosuma leen gis xaw ma leen donc il faut qu'on ramène les choses là où et la majorité des militants responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais xamuñu de quoi il s'agit c'est des militants engagés pour la cause du Sénégal moo tax théorie complot yeeg ay wax yooyu dafa ça va pas loin li am mooy li ñuy gis nii euh, une justice un juge un tribunal un dossier de 141 pages 14 avocats pour Sonko et des avocats pour la pour la pour l'autre l'autre plaignante et les témoins qui qui défilent c'est ça au bout du compte depuis le début mënul doon leneen lu dul loolu foofu rek la mën a yegg maintenant euh, le le le le jugement en cours euh, euh, ñu ñu bàyyi ko à la cour criminelle mu dox jusqu'au bout ñu xool ce que ça va donner. quel que soit l'issue de ce procès là. Hmm? vous pensez que le Sénégal en sortira indemne? il y a des procès en démocratie c'est parce que justement on est en démocratie et en république. que certains procès marquent au plan social en particulier les pays. C'est normal. Euh, parce que euh, autour euh, de cette crise, on aura vu <laughs> beaucoup de phénomènes. On aura vu les questions de, euh, de souveraineté de l'État, euh, les questions de, euh, de respect de l'ordre public, les questions des mœurs, les questions de pratique de, de massage, les questions de, nous plus loin, de euh, du, du, fait euh, de la gestion euh, de, de, de des secrets d'État. Mais ce n'est pas simplement une question sénégalaise. L'affaire Snowden a révélé des choses et dans d'autres pays. Mais cette crise-là l'a accélérée. On a vu des comportements en démocratie sur l'intégrité des, des, hommes d'État, des administrateurs, etc. Toutes ces questions-là, euh, ben, des phénomènes comme ça dans la marche d'une république et de la démocratie, des bocs qui l'y marquaient euh, Euh, l'histoire et la marche démocratique d'un pays loolu